salaamaaleykum suñu mbokk internetu Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois saa bu actualité bi tollee fii ah, nee naa leen décor bi saa nu ñu ko gisee rek jotaayu urgence la. Ah, donc moom moo tax tey ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy Feeling Dakar man ak Ngoné dama ko fekk ci émission mais jotaay urgence bi nga xamante ni moom laa leen wax à chaque fois ñu war a waxtaane ci lu bari dañu waxtaane ci Adji Sarr libération Nabou Leye loolu yëpp nañ ci waxtaan ak feebaru yaadu wi li nga xamante ni révélation yi yàgg yàgg na koo def biir këram waxoon ma lu leer ci li nga xamante ni moom mooy yaadu loolu dinañ ci waxtaan ah, balaa boobu dama koy jox mu dégg mbokk yi après ñu ko ci waxtaan bi ak ah, ngoone maa leen di di ziar bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay Abdou Khoudia bu baax a baax am mbégte ak kontaante rek ñëw dellusiwaat ci plateau bi comme ni nga koy defee chaque semaine di waxtaan ci wàllum liggéey bi ak li nga xam ne tamit moom muy ci réew mi mm-hmm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan dix-huit millions d'habitants yu Sénégal mm-hmm. biir réew bitim réew ñëpp ñoo ngi leen di nuyu mm-hmm. di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñi nga xam ne dañoo tawat ndaam di ko wuyaale wala tëdd ci lalu hôpitaux yal na yàlla suñu borom fëgg seen bopp di ñaanal xalif généraux yi ci réew mi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp euh, di ñaanal président Bassirou Diomaye Faye yal na yàlla oyofal li nga xam ne mooy yem bi euh, Ousmane Sonko macha allah yal na ko yàlla suñu borom defal ko jàmm moom it ci élection yi ñuy jëm tamit mu def mu battre record bi comme ni ñu ko defee rek ci li xam ne mooy présidentielle bi di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal wooy dawlu yi di sàkk ci ñoom ñaanit ñu ñaanal ñu ñu fee yàgg lool di leen ñaanal di mm-hmm. nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy seetaan suñu xarit yi suñu patient yi mm-hmm. ñi nga xam ne surtout suñu mbokku gambien yi sénégalais nga xam ne ñoo nekk partout dans le monde duñu bàyyi xel mm-hmm. ah, mi ngi noonu ngoonee bi ñu def lu dugg ci waxtaan bi ah, sànq rek maa ngi naan la tey war nañoo waxtaane lu bari ak révélation yi nga xamante ne ni war nga ñu ko wax ci campagne bi ah, ba ci élection yi mais fu ñuy démarrer dañoo gis Adji Sarr donc mu def benn vidéo bi nga xamante ne nii naam génnagul am na ñu ko téye am na am jot na sax fiyute. Mm-hmm. mi baal Ousmane Sonko bu fekkee loolu am na ngoone ban mm-hmm. jàngat nga ci am. waaw Abdou Khoudia lu ñu wax ci kii. Mm-hmm. Adji Sarr waxoon naa la ne Adji Sarr fu mu toll nii dafa tonk. dafa ne woon naa la Adji Sarr dafa mel ne ku amee bougeotte. nee naa la woon ne Adji Sarr toogul taxawul nee naa la Adji Sarr bu toogee ba mu nekk ko mm-hmm. day génn wax génn def ay yëf waaye Adji ne woon naa la bu toogee mm-hmm. day mel ko amee bouge toogul taxawul mm-hmm. parce que Adji Sarr dafa am lu nekk ci moom wax naa la ko Adji Sarr plus tard dana génn wax te nee naa la yóbbante kuy tukki waaye jaay laa la fa cere ji ñore Adji Sarr day génn te day wax te fu mu toll nii Adji Sarr dafa lamb gauche lamb droite Adji Sarr xelam demoon na ba mu dem ci Abdou Khoudia pour chirurgie. Hmm. changer kanamam. Ah changer ay affaire am. barke Seydina Mohamed. c'est la voyante la plus pertinente. Hmm. la détectrice. Hmm. Ah waaw maay détectrice bi li ma wax ci doomu aadama du dañ lu ma wax ci doomu adama du dañ. Adji Sarr dem na ba xelam dem ci dem dem ci li nga xam ne mooy chirurgie. Adji Sarr dafa tonk parce que amatul xarit. wóolatul doomu aadama ndax ay waxam day dem. Mhm. lu ko waral dafa tooñ ay wàlliw. ñaata bakkan ñoo rot la fa aji saar la fa tax aji saar euh, bakkan yooyu rot ci. 83 mhm. morts. loolu aji saar mënut a ànd ak conscience tranquille mhm. nee naa la day jooy ci nday joora ba mu fees mu sotti ci càmmoñ. yàgg nga ma ko wax yàgg naa la ko wax nee la. li muy wane di génn di foto aji saar li muy dund. su toogee moom kase moom ak yàlla suñu borom rek ñoo koy xam. Hmm. te bientôt Adji Sarr nee naa la day wax lii mu nekk ni dañ koo teg lu diis. ok Adji hmm. dañ koo teg lu métti sëriñ suñu fayal muy man di sama borom. Hmm. heure bu ñu téye seen course ñi ngi ci Adji maa la ko wax. xëy na nag lu ñu naan seytaane dafa am doole te bi ñu koy def loo lii di ko programmer loo di ko tegal lii dafa am luñ ko dugalal dafa am luñ ko defal boole kook ay seytaane ñu renforcer ko doole. Hmm. waaye Adji Sarr kase en personne du fitam d'accord moo tax mu créé lii te lépp dafay leer te bientôt te yàggul Adji ko defagul gisagul dara day génn. ok te day wax setal Ousmane Sonko wax ndigg sërëx yi. Hmm. wax dil yi nga xam ne dañ koo teg. leeral ko fan la jaar ak fan lañ ko retracé lépp day génn dafay retracé li nga xam ne moom mooy film bi. nga yaakaar ni nga ne bu defee loolu tax na aussi sénégalais yi bàyyi ko parce que bi muy métti waxu ko ba moment bi. xelam na xalaat bi génn non non dootul mën a dellu si Adji Sarr génn na bi bi 18 millions d'habitants yu Sénégal. Mhm. dafa am kenn ku ci manqué mooy Adji Sarr. te kenn génneeku ko ci 18 millions d'habitants yi de kenn génneelu ko ci Sénégal lam daay moo ci génnee boppam. Mhm. parce moo taxaw tuumaal nit ndax lan xaalis. ndax alal ndax politique ndax Macky Sall xool ba xam ne Ousmane Sonko mi mën na koo dominer. <laughs> digg sërëx bi jógee ci Adji Sarr mu ñëw ñu jël ko alal jox ko te lañ ko diggoon ñëpp xaaj bi joxuñu ko ci tous France daal di xëddéem ndax dañoo yaakaaroon ne dañuy gañe <laughs> te fekk nu gañewuñu gañewaanuñu ndax lan dafa sonkul dafa dafa sonkulisé. koo xam ne dafa bëggoon a sonkulisé sax laa koo xam ne yàlla suñu borom moo ko teg. <laughs> non Pastef du ay jaaxaan. ñaata nit ngay di ay ay ay parti socialiste. Mhm. parti socialiste dem ñu daa teg parti euh, PDS. PDS ñëw ñu jokk ci dee bi bëgg ñoo rey. Euh, pour ñu dee. Mhm. ñu la dee ta waaye APR ñëw ñu daaf paake ba mu mat jox ko ko pour ñu doggale ñu ko. Mhm. mais sauveteurs yi ñëw les deux de l'humanité humanité. waaw waaw les sauveteurs de la nation c'est Ousmane Sonko et Diomaye bu Ousmane moo drapeau bi ñu xam ne ne ñoom depuis 1960 ba tey PS. PDS. parti socialiste ak ak ak APR drapeau drapeau national bi ñu téye woon drapeau bee ngi rot seen loxo hmm. Ousmane Sonko téye drapeau bi ñu ne ko doo téye drapeau bi ñu bëgg a rocc drapeau bi mu jël drapeau bi parce que ki nga xam ne mooy Diomaye mhm. son des sauveteurs de l'humanité moo ñu sauver sauveteurs de la nation mhm. léegi nag Adji Sarr nag ñu duggal ko ci jeu boo xam ne dafa dem ba ci war a suuf fu mu war a recruter c'est trop tard waaw c'est trop tard c'est trop tard mhm. Adji génne bu ko waxee lan la mën a ànd tamit ci réew mi non bu ko waxee dafay gën a setal deru Ousmane Sonko ndax ba tey Ousmane Sonko ndaam mhm. deram set na ndax Adji bi muy dig mhm. dafa dig nit ñi ay vidéo dig ay image fi ko Ousmane Sonko doon malmené mhm. fi ko Ousmane Sonko doon doon ko maanaam defee comme ci li xam ne moom la tegoon ci sénégalais te yàgg naa ko wax ku gis image Ousmane Sonko ah pornographie ku gis Ousmane Ousmane Sonko ci ay bëtam nga gis sa bët tam barke Seydina Mohamed. Mhm. loolu la digoon askan bi bi ñu demee ba tribunal ñu daal taxaw loolu Adji teg ko ay waxu ndax sa xandak ànd ak avocat boobu nga xam ne seen avocat di jaabu ànd ak moom ay waxu ndax sa xandak lañ jël teg ko ci askan bi mais nit ñi dañu dafa ah. mhm. réew mi toll na foo xam ne ne Ousmane Sonko ku dagg noppam ba doo dégg mu dagg sa xottu taat ba du dëgg. Mhm. waaw waaw ku dagg noppam ba du dégg mu dagg sa xottu taat ak du ba du dëgg barki dañoo tooñ waajiw tuur ay deretu sénégalais tuur ay deret ñoo xam ne dañoo génn yor seen drapeau génn ñoo xam ne di xeexal seen réew ndax injustice bi nga xam ne moom lañ tegoon ci réew mi hmm. jiital Adji xale bu am vingt-deux ans hmm. ñu jiital ko pour mu tax Sénégal du tax Sénégal hmm. te lépp ci njublan lañ ko teg ci fen lañ ko teg ci dëgg sërëx lañ ko teg bëgg la daal Macky Sall képp ku ko mës a ci mhm. politique wàccee na la rey na la raje na la comme ni mu ko defee ci Karim def ko ci parti socialiste. Mhm. moo lay wan ne ni ñii. Mhm. ñii du ñu nitu dara ñii kan moo leen di voté assemblée ñuy yor majorité. d' accord parce que ñoom ñoo yàq Sénégal ah PS. PDS ak ak ak ak ñett ñooñu bu ñu lonkulikoo naan tey dañuy wàllu ku ñuy wàllu ku ñu diigal ba ñu romb bato Titanic mën nañoo jox ñu kasal ñu kàmb duggal ñu ci bu ñu toolee ba jamono ñu dajee teg ñu yor ñaar ñoo xam ne dañoo ànd. Mm-hmm. ñu xeex ba daanu Cap Manuel ñu génnee weer ñu ne dañuy àndal dañuy àndal surtout Macky dafa fàtte ne. Mm-hmm. constitution Sénégal nanguwul képp ku mës a jaar ci réew. jaar ci nguur nga taxawaat naan dangay campagne di laal nguur. xanaa da ko mm-hmm. fàtte. déggoo lu mu wax aussi nee na ñii ñi nga xamante ni toog nañ bi ñu toogee ba léegi maanaam koom-koom bi dafa wàññeeku amul sax yaakaar que ni ñi mën nañoo jiite réew mi kàddu Macky Sall yooyu naka la la def. waaw kàddu Macky Sall yooyu. bu demee tey ba naan ay koom-koom bi ndax mënuñ jël réew mais moo yàq réew mi ah moo ko def ubbil barka jaay ba ma naan Sénégal du ubbil barka jaay bu yàqoo defaraat ba ubbil barka jaay sax dañ ko dekkal. nguur est-ce lañ jël. loolu bu koy moom lañ ci hmm. ah. <laughs> defaat. Hmm. Hmm. maa la ko wax. ok kon dafa am yenn yoo xam ne Macky Sall ki nga xam ne Sénégal la lu ne. Hmm. président Macky Sall bu demee ba naan day toog di campagne yow Sénégal jox na la justice. Sénégal euh, ministre la justice jox na la président assemblée. Hmm. ak yeneen ak jox la président jox la premier ministre jox la la lépp waaye ça cesse. Hmm. Macky na doy réew mi doy nañu lii kenn mësu koo gis ci l'histoire du monde wala mais mais mais mais Abdoulaye Wade bu mu demee dafa dayal gëm yàlla dem toog. Mhm. Abdou Diouf kenn déggatu ko. Abdou Koumba dem ba mu demee la bàyyi réew mi. tout à fait. du nag. Mhm. Mhm. nga dem nga ne yow doo bàyyi réew mi ay campagne yu WhatsApp Macky Sall xam nga bu dellusee dugg ci camp ci réew mii <laughs> naan day campagne wallaahi waxoon naa ko ma dagg sama course. day yóbbante galgal ndax yow ba ngay toog nekk fi en personne la la réew mi bëggul. ba ko fiy toog en personne la réew mi ne nga nga insister ñu taxaw ñu insister waat ñu taxaw eh. dañ laa jox bool benn yoon nga lekk nga jox la bool deuxième nga lekk. Hmm. ngay laajaat troisième bool sénégalais yëpp àndandoo kàjj la. pour pied la ne la allez doyal. doyal nañu. ok d' accord euh, loolu am na solo bu baax a baax ci Adji Sarr li ci jotee def ay révélation ah, donc dañuy dem nag ci Nabou Leye mm-hmm. naam daan nañ ci wax lu bari say révélation à chaque fois bu ñu defee émission nga ne ma euh, Abdou Nabou Leye mi ngi ci lu wóor maanaam mi ngi def ci wàllu mystique loo xamante ni nii tey bu génnee yow du la bett naam ñu gis avocat am euh, di wax que ni Nabou Leye euh, dinañ ko bàyyi ci ay fan yu néew donc ban jàngat nga am ak tamit révélation yi nga yàgg daan def di alerte ne Nabou Leye ci lu wóor la jàpp mi ngi ñu ngi ci ay mystique yu garaaw pour ñu génn ko bu nga déggee avocat ay dama ko gis te lu tax ma ne la li muy def bu jàppee waaw mën na ko taxaw li euh, libération ndax mystique mën na lu ne. Mhm. Ah, waaw waaw dañuy liggéey ci wàllu mystique. Mhm. soo xoolee bañ na lii lu mënta nekk. waaw dañuy làqu ñaan ko yàlla boole ñëw ay jinne yim ñu booleel. Mhm. loo xam ne tey lépp lu ñu bëgg suba ba ngoon jot ci kattanu yàlla dañ koy am. tax ma ne la mystique mën na la dama koo gis dama tëdd mhm. ñu wan ma ko mhm. comme niñ ma koy wanee ci deewu yaadoo bi ne wan naa la lii ñu koy defal ak nangam ak nangam dañu xaar ñu wan ma ko ci yeneen ak yeneen ah. ñu wan ma ko ci génn affaire wu Euh, Amadou Ba ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ koy faral di ko gis dañ ñu wan. Mhm. dañoo ànd ak ay jinne ilimaan dañoo ànd ak ay rawaanu ilimaan loo xam ne tey lépp lu war a ñëw tey dañ ñu koy xamal. Mhm. di ñu ko wan ak yàlla suñu borom baatin ak bachira mhm. bi nga xam ne moom la ñu yàlla suñu borom moom moo ñaanal. libération bi dama ko gis dama gis ay ñaan ñu koy utal te ñi koy utal ay kàngam lañu xam naa du ñu sëriñ sawkatu la. te liñ ciy taxaw tey dañu dem ba ay ay chiatine yoo xam ne mën nañ ko ko dugalal. nee naa miir bi boo sénégalais yi toog ba dégg ne libération Nabou Guèye bu mu bett kenn. mais ngoon na loolu da ko yàgg wax. non bu mu bett kenn dama ko yàgg wax. ok naa la parce que fi ma gis mystique dafa mën lu ne. Mhm. sarax dafa mën lu ne. Mhm. nee naa leen sarax mën na fank de mën nga feebar ba docteur bi ñaata nit ñoo tëdd ba nekk réanimation ba docteur bi ne saye mhm. tey nga dem seetlu dal na ma ci benn ñaar ñett seetlu am sarax bu ndaw rek ñu génnee la ko kooku ne peut-être moo tax ne sarax dafay fank sax de ci saa su nekk. ok sarax dafay fank dee. kon lii ñu gis ci mbirum lii dafa laal mystique. Mhm. mbirum Aziz Dabala dafa laal mystique lépp lu mu jaral Nabou ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso pour ñu génn waa kër ñoom Aziz Dabala nan leen koo jaral ndax mbir mi leer. ndax boo toogee ñu dégg coole fi mu mënta toll ba sori ñu ne ñoom amuñu woon. amuñu woon sa avocat. man affaire bi daf maa yéem mm-hmm. d'après xaalis bi ñu jox lépp mm-hmm. ndax yow wàllum crime lu ci nekk tey ak li li mu méngool Nabou Leye fu mu taxaw nii mm-hmm. xam nga lan la soxla ay ñaan ñoom li ñu soxla mooy avocat bi leeral Nabou Leye moo soxla ñaan moo soxla sëriñ mais ñoom ñoo soxla avocat boo xam ne dafay taxaw ci dossier bi gaaw ak waa kër ñoom waale ndax double meurtre la ñu leeral lépp loo xam ne lu lëndëmoon mhm. mystique dafa mën lu ne damaa gis mu taxaw ci mystique góor goo xam ne dafa taxaw yor alalam taxaw ci wàllu loolu bi feebar amee yaa ngi koy di ko wax maa koy alerté dem nañu dem nañu Guinée Bissau mhm. def nañ fa ba am yaakaar dugg naat nañu biir Mali te def nañ fa ba am yaakaar li ci des nag. Mhm. ñu ngi suivre mbir naan leen def leen def leen di génne seen sarax sarax mën na lu ne. Mhm. man bu far di am Aziz Dabala ci laa far parce que du ma nangu injustice. dëgg la nit koo xam ne Aziz ku baax la ku jullite la. Mhm. koo xam ne danaan liggéey liggéeyam di daar dooleem ci saa su ne ay nit ñëw saay saaye ko ay nit ñëw ñoo xam ne manigancé ko wàllum soxor iñaan jalousie. ak argent moo ci nekk. trois soxor iñaan jalousie ak xaalis moo ci mais Ngoné léegi li nga yàgg di révéler comme ni ma la koy waxee dafa mel ni waa kër Aziz Dabala yëg nañ li nga xamante ni moom la ñu bëgg a def Nabou Leye comme avocat am nee na ci fan yi néew dañ ko bàyyi mu génn donc est-ce que loo tax ñu bëgg a taxaw. avocat boobu mu njëkk ba daan daanuñu wax ci avocat avocat moo waroon nekk lu jiitu. waaw quand ci wax mais. jam na ba pare li ñu waroon def li ñu gën a jublu. Mhm. tey sëriñ bu ñu fexe ba Aziz dekk sëriñ mënut a tax ba Aziz dekki wala dara sëriñ mën na taxaw nag mbir mi gën a leer mais avocat mhm. mooy gën nit koy dund ci bu ne war nga mën a am sa avocat tout à fait war nga mën nga am sax sa mhm. assurance sa vie mais lu muy mënta demee mbir mi dafa toll foo xam ne mhm. sa gëm ñu nekk ci biir moo leen ko jaral avocat pour set man dinaa wut avocat pour ngeen gën a dugg yeen du set wala ba justice setal leen wala ba justice leeral leen ba mu leer dafa am loo xam ne loo dafa dafa am loo xam ne nag Abdou Koudia. Mhm. dama ko gis te c'est la voyante du vingt-et-unième siècle. waaw waaw voyante du siècle. kon tey bu nabu lay génnoon ngoone bett la ndax. li nga yaakaar ci li ma gis. ok moo tax ma ne la ñoom. Mhm. nañu def nañu taxaw bu baax a baax gën a xoolaat bu baax parce que dama gis mystique bu am doole la nabu lay nekk. Mhm. nabu lay dañ koo toogal ci mystique bu am doole. te Nabou Leye nekkul woon ku ñàkk a ñàkk-ñàkk boo xam ne dafa am lu mu bàyyi woon ginnaawam te da koo teg mhm. ñàkkul xaalis te ñàkkul ñoo xam ne tamit ñu ngi taxaw euh, pour pour di ko defal ay ñaan pour mhm. dama ko cee gis affaire Aziz Dabala bi dafa nekk loo xam ne lu louche te lii bande la ay nit ñu bari dinañ ci tudd ñoo xam ne sax mhm. wallaahi fooguñu leen ci woon yoo dina jub fuñ ko foogee woon maa la ko wax dafa am loo xam ne daf ko laale lu bari Aziz ça dérange boo xoolee bu dernier clip dernière génération yëpp. Aziz nga gis su ma toogee pare yenn saa yi di seetaan clip sama kër. Mhm. di xool euh, euh, sélection bu mujj mën ngaa xool 10 ba 15 clip yoo xam ne Aziz Dabala moo ci nekk sans dérange. Mhm. fu mu toll fu mu toll ñu xool ko te Aziz biddiw bi ak rawaan bi dafa am doole. Mhm. Aziz nit ku jullite la woon nit ku baax la nit ku sell la nit ku yàlla baaxal tey ñu ko def nii foo jaar dañuy feeñ. waaw dañuy feeñ. am na loolu loo xam ne du hasard. du hasard tout à nag lu ciy daj wàllu mystique bi dama ko teel a wax dama kii bi ma ne gis naa loo xam ne. Mhm. ñi ngi ciy taxaw kuy doole nag yàllaa la dooleel ndax yàllaay kun fa yakun. dëgg la waaye li ma gis laay wax ci wàllum mystique dañ cee taxaw ci wàllum xaalis ak lépp. Mhm. te damaa gis góor goo xam ne day taxaw di ko ko demal. te da koo jar ne ok. waaw wàllum mystique yaa toogul. waa këram tooguñu mais dama gis ku ci gën a xam. nga mhm. xam ne dafa génn Sénégal nekk ci àllu Mali beeg Guinée Bissau. Mhm. Ah, loolu yàgg nga ko wax. yàgg naa ko d' accord d' accord Ngoné ah, loolu am na solo bu baax a baax comme nee naa la yow moom. Ah, bis bu loolu amee de pense du ñu bett parce que yàgg nga ko wax di ci alerté di ci wax li nga xamante ne nii sénégalais yi xam nañ ko ci yow bu baax a baax mais bi yaadu feebaree te ba ñëw sa kër ne la ndax nga gisee yaadu nga am li mu wax na ma Euh, Abdou Yaaru daa am li nga xamante ne nii ñoom ñoo ko jàpp gaw ma ni dina jukk te bu jugee dina ma bett trop naam bi caméra yi euh, wàccee nga ne ma li ma la bëggoon wax mooy que ni yaaru du jugaat loolu sama bàmmeel laa taxaw jaralu may wax loo xamante ni du dëgg euh, ban jàkkat nga am ak lan nga gisoon ba ni yaaru du jug. waaw daa rëy trop dañ diw day dee. ak damaa gis ne diw day dee day mm-hmm. yaay xool mm-hmm. naa ne xaalis bii mm-hmm. ñuy jël di dajalee ko ak di cet nañ ko téye pour dara ndax yaadoo mi ki ko topp ba ci yaayam di ko jur wéeru wax naa la ko nee naa la ay nit a guddi ñoo ko topp te dañoo lekk xol bi ba mu commencé jeex wax naa ko émission nee la dëmm bu la toppee sa xol bi la ñuy commencé te loolu yàgg na loolu yàgg na dama koo gis bi ma ko gisee nee naa la euh, Abdou Khoudia man néew daf may xeeñ même ci télévision waxuma la sax ñu jàkkaarloo man new daf may xeeñ yàlla suñu borom daf maa may baatin ak bachira nee naa la bu ma duggalee set ci nit. Hmm. duggal sa tuur bis bi nga juddoo xam naa ko lépp liggéey ko def xam naa ko day taxaw ci ndox mi tuur sax day taxaw ci samay biir. Eh, dëgg la dafa nekk loo xam na hmm. ñoo amul boo leen nee diw nangam hmm. dañ koy dem attaqué ji wala yeneen ay problème moo tax doo wax yu bari daa ko bis bi ngay dee boo dee gudd fan ba bis bi ngay dee xam naa ko man mi sama bopp sax. sama borom bu ma duggalee sama set dañ ma koo wax cent deux ans laay dund. cent deux ans barki <laughs> Rasulaay cent deux ans yi day romb tegal deux mois. Hmm. ma dee man dañ maa wax man sama ba wax ma date bi may dee man. Hmm. mais ba jour ko xam. d' accord mais ngoon fi nga sukkandiku woon ba ni yaadu du jug. fi ma sukkandikoo ba ne yaadul di jug. nee naa la ñun dañoo ànd ak ay amee man woo naa téléphone ak ay jinne yi nga xam ne wax nga ma ma ne du jóg. xaalis bi ñu koy ketele bi ñu ko sonn ci hôpital. nee naa la dëmm lu muy def da lay ko wedd ni mën nga arriéraat euh, xool émission boobu mën nañu xool arriéraat ñu xoolaat yeneen vidéo yi mhm. xoolaat émission bi dinañ ko gis. Mhm. bi ma defoon ci yaadu. Mhm. ndax fii dara du fi dara du ci ëmb tout à fait dañ ko programmé wu sax mais ko teeloon def ko vaar. ñu gis ko ñu xam bu baax li may wax c'est la voyante le plus pertinent. seet moom maa ko dàq ci àdduna li may wax du dañ. yaadoo lu tax ma gis ko dañ ma wan. dama am vision boo xam ne seet la. nee naa la set bii ma yor yàlla suñu borom moo ko def ci man boole maag ay rawaanu kilifa. Hmm. samay ñeent fukki at moo judd vingt 2023. kon chiffre 3 bi yàgg na. Hmm. muy mil 40 ans 1983 boo ko adapté 12 euh, la lay jox xam nga defe naa 12 xam nga 21. mais 3 la lay dikkee. Hmm. kon xam naa bu baax li nga xam ne moom laay wax wàllum seet la yàlla suñu borom moo ñu ko may. Mm-hmm. képp koo xam ne waxuma la ñu seetal la jël loolu chiffre un ba neuf jël loolu ay chiffre wala nga tàll sa diggu loxo ñu seetal la ci. Mm-hmm. waaye dama ne la wàllum seet. képp koo xam ne kuñ ci lonkool ñoo la mën yàlla suñu boroom daf ñuy wan mm-hmm. dañuy làkkoog ak suñuy rawaan bi toog di liggéey wala ku ñu ne jàkk ci doomu aadama rek war nañ xam lépp lu nekk ci yow bu ñu ma wanee ci yaadoo bi affaire bi amee laa ko gis internet bi ñu ko wax ci coowu bébé Eva. bébé Eva ma ne jàkk di ko seetaan ci image lañ ma ko wanee génn. Mhm. may xool rek dama seetaan tëj samay rawxaan wax ma ma xam ne carrément kii dootul jóg. Mhm. ñu tegal ma carrément. ni may seetee nit ni muy nekkee nekk ba nekk ba France partout dans le di ma woo dama tag soxna Ngone nanga ma naa damaa bëggoon nga seet xaw ma la xamaanu ma la ma dina seetaan. Mhm. noonu la ñu ma ko wanee xamal ma ne carrément. ay dëmb yaadoo borom bopp la waxoon naa la fi yaadoo day seet. day seet waaw yàgg nga ma ko. naa la ne la yaadoo day seet. nit ku yàlla may la. Mm-hmm. dëmb nag du ñu lekk tête vide képp ku ñu topp rek. am na ak am na ku ñu rek am na lu lu yàlla suñu borom def ci yow. Mm-hmm. bi ma ko xoolee ñu wax ma ko ma xool image bi ñu ne ma kii de day dee. ndax dëmm moo ko jàpp nangam ak nangam nangam dëmm bu njëkk ba danaan topp famille du lekk du lekk ku mu bokkalul. Mm-hmm. waaye dëmm léegi dañuy génn di topp ay ñeneen ñoo xam ne mooy loolu dëmm famille la daan topp. ok mhm. lekkante da nga daan gis ñu naan ku jur di fayee bor. Mhm. wala kuy lekk kii lekk ay famille. lekk ay dëmm famille la topp daawul laal jàmbur. Mhm. mais léegi fi mu toll nii dañuy dem di laal ay keneen ak keneen yaadoo xol bi bi ma koy xool xol bi ci partie droite bi laa gis dafa jeex tàkk ba toq ko ci des. xol mooy nit. xol buñ ko lekkee ba mu jeex. tàkk jeex na ba pare boo gisee ñu naan dañoo tëj dëmm bu la jàppee da lay fàtt doo saw doo dem douche. doo sam doo dem douche dalay fat am na nit ñoo xam ne bu ñuy dem douche seen saw day dagg loolu rab euh, loolu rab da koy def. Hmm. waaye nee na seytaane da koy def parce que dañuy lekk sa estetin xaw ma estetin lañ koy wax xaw ma butit ah, ah, ah, moom la ñuy lekk ba mu jeex hmm. tàkk. Hmm. dëmm bu la jàppee lool lay def fii lay toog sa butit te damaa gis ne ay butitam ak xolam dañ koo lekk ba mu jeex. lekk ci ay tànk ba tànk yi mënut a taxaw surtout say tànk la ñuy njëkkee. parce que boo amulee appui doo mën a taxaw. Mm-hmm. te dañuy jël sa fit sa fit du nekk ci yow. ku dem ma jàpp Abdou Koudé boo déggee oto bu klaxonné la da ngay tiit da ngay gis pareen saa yi kuy toog nii benn place nit rido romb la wala nit romb la damaa tiit. Mm-hmm. parce que fekk na sa fit nekkul ci yow. Mm-hmm. fit bi la ñuy jël commencé ko ci xol bi commencé tànk ñu tëj sa biir doo dem douche doo saw. boo yàggee nooy def biir bu ballonné nga dee. ñaata nit ñoo xam ne seen biir yi di ballonné ka fekk na lekk bu bon da def da koy def ngelaw. yaadu loolu lañ ko def te dama ko gisoon te newoon naa la lii ñu koy def nii yaayam borom bopp la sax yaayam ma gën a feebar. yaadu tout à fait. dafa am loo xam ne dañ koo topp. dañ mhm. leen mhm. euh, loolu moom euh, yaakaar naa ni sénégalais yi xam nañ ko buñ la yàggee topp parce que loolu defoon nga ay révélation ci moom. Mhm. bi ñu fa jigee dafa am avant campagne bi di jot man laa joon la ne élection yi lan nga ci gis ak campagne bi aussi lan nga ci gis euh, nga ne ma woon ni dina bari coow. attaques yi dina bari naam gis nañ ci accident temps yi ba am ku ci gaañu ci ñi nga xamante ni ci ci ci ci Pastef la la bokk donc révélation yooyu nga gisoon ba wax ko ak attaque bi nga xamante ni waxoon nga ko ñu gis ko loolu tamit la ngeen ci say révélation ba tey ci la ñuy waxtaan waaw attaque bi barki Dembo Ndiaye laa la bi nga xam ne mhm. moom la ñuy faral di attaqué Ousmane Sonko mhm. te man bokkuma loo xam ne dama koy gis muy danger du ma bàyyi ba mu ñëw ndax Ousmane Sonko mii. Mhm. yàlla suñu borom moo ñu boole woon ñuy ay patriote pur et ni muy xeexee pour réew bi ñu tam ñu ànd ak moom di ko xeexee réew mi. Mhm. lu ñu gisoon ci Ousmane Sonko mooy dañ koo gis tey Ousmane Sonko damaa toog gis ay samba yoo xam ne dañ leen la yabal ñu yor ay pistolet ak yëpp te nee naa Ousmane Sonko dafa am lu koy protéger ba pare. Mhm. yàgg naa taxaw naan Ousmane Sonko dafa am ay aigle yu koy wër. ay aigle yoo xam ne ñu koy gis ba ci démb rek <laughs> waxtaan naa ci ak Azura ndax dafa am vidéo moo fi defoon bu mhm. génn di ma attaqué naan oustaz Sonko mi ngay wax naan ay aigle ak ay picc ak yooyu démb ko bër bërki démb communiqué nañ mhm. bi ma ko waxee parce que dama ko gis mu nekk rawaat boo xam ne picc la. mais am na ay campagne bu mu bu mu demoon ci ci àll bi gis nañ. picc yi wàcc nañu. parce picc yi dañoo wàcc bërki démb. bërki démb nga gis attaque bi am te attaque bi attaque pistolet ne woon naa la taxaw waxuma la gilet pare-balles. Hmm. bu ci mënee sol sax ay ay combinaison waaye da sol sax combinaison. Hmm. waxuma la ak gilet damaa gis attaque yooyu ay samba booy la Ousmane Sonko dafa fatt fépp. Hmm. fu mu pistolet boobu dama ko gisoon te boole na ci sarax yu ma war juróom-ñaari kilo gerte ak ñetti kilo ak ñetti kilo eh, kii dugub. dugub juróom-ñaari kilo gerte yooyu dama koy sotti ci tali. Hmm. man am lu ma ciy ñaan am na lu ma ci wax pour mu tëjtal ko dama koo sotti ci tali. Hmm. ci booru Banque Africa bi gardien bi may wax mu ngi du ma fen may gis. Hmm. bi ma ko sottee ay deux heures sama kër sorowul ak tali bi. bi ma ko sottee noonu. ci booru tali bi ne eh, rek damaa gëstu xaw bi mu jógee. camion conteneur boo xam ne moom laa seen ma arrière. Mhm. damaa sotti sigg ko rek mu nekk loo xam ne magique la. barki Seydina Mouhamed. Mhm. yàlla bu ma yegg. Mhm. ma gis conteneur bi wàcc mais bi mu wàccee ma arrière ba ni may ñibbee ba sa buntu kër maa ngi dégg ratatatatatatatatata ratatatatat muy tàttal. <laughs> mu koy tàttal ratatatatat. loolu ay sarax yu garaaw laa yor mu toj lépp. <laughs> loo xam ne mooy seen pexe. ma ñëwaat ba ci buntu kër gi gis ñetti picc. yu ñàng yu day waar gi mu yu gudd comme melokaanu aigle. ñu mm. def nii di wàcc. di dox. ñuy def nii di wàcc comme si que ku may sant naan ma ay jërëjëf nee naa la la yàlla joxoon yonent yàlla Yusufa jox na ma ko tubaarkaal xusal na ma ci ci taar baag jox ko ma mm-hmm. yàlla joxoon yonent yàlla Suleymaan xusal na ma ci tubaarkaal macha allah danaan wax ak jinne di wax ak picc yi damay wax ak jinne yi di wax ak picc yi mm-hmm. jinne yi wàcc di ma sabal di ma ñaanal te bokk na ci armée. jinne yi nga xam ne ñoo ànd ak ci rawaanu Ousmane Sonko bi bu mhm. noire balaa ñu wàcc def ak seeni yëf ma ne leen jërëjëf dem dugub mhm. ma yeewu def ñetti kilo dugub yoo xam ne tey dama koy dem jox ko borom saret bi mu sarax ko li nga xam ne moom mooy mu jox ko fas bi pour mu yëy ko mhm. mu tajol ko damaa yor ay sarax yu garaaw ci la war a ñëw nee naa la samay sarax day fank ne lii am ci ëllëg sa la attaque bi am ñu am waaw. billet bi bi après ci guddi ga dañu gis picc yi jalonné. waaw ko ci internet. tout à fait viral na picc yi jalonné foofu ca Matam. viral picc yi jalonné boobu ñu ngi annoncé. Hmm. ñu xëy di gis rek ba li ñu bëggoon amul. Hmm. xanaa du sax day toj. waaw day toj toj sama waa ji le sauveur de l'humanité. Hmm. tubaarkàlla macha allah sauveteur bii nga ne bi drapeau Sénégal du rot moo ko téye. sama waa ji tubaarkàlla macha allah xadi ko may sa yaay. jàmbaar fàq dëkk bi lu ma gis yow tubaarkàlla may génnee sama pochette. ndax da ngaa sauver Sénégal ah. da ngaa sauver suñu drapeau da nga ñu génnee dans le blanchir ñu lépp lu ñu gis du ñu naan ay nañ def nangam ak nangam. Mm-hmm. ba ci nag yu weexee lu ma gis dama koy def. Mm-hmm. lu ma mën sama poche may ma ko du ma toog di ko def parce que ni ma sauver Sénégal. Mm-hmm. Ousmane Sonko du ma war a dem képp kuy sénégalais nga gis. Ousmane Sonko xeexalul boppam réew bi la do xeexal. bu drapeau bi bëggee rot. mu téye ko bu nee bañ bëgg koo nangu ci moom da koo paas jomaay. bu dëggal <laughs> d' accord ah, Ngoné loolu am na solo bu baax a baax nee naa la saa yu ñu defee émission rek yàlla day def say révélation ci la ñuy waxtaan mm-hmm. ah, ndax day bokk yi nga xamante ni da nga koy def ba pare am ci euh, dëgër laay am ci gëm-gëm ne lii gis naa ko mm-hmm. te après loolu la ñuy gis ba di ba di ci waxtaan donc dañu dem ci liggéey bi xam naa sénégale yi ci loolu lay gën a xaar mm-hmm. euh, parce que jamono ñi gis nañ ni euh, bàyyi leen la xel bu baax a baax a baax ndax ci liggéey bu am solo bi ngay def wàllum seet kenn dootu ko nataabale mm-hmm. sa diggante ak moom ndax say révélation ba nga doon dëkkalaatal ci seet aussi loolu nangu nañ la ko wax léegi fu <laughs> allah dañu am ay saabu yu doy waar yoo xam ne ci wàllum cat ak làmmiñ cat ak làmmiñ savon yu doy waar yoo xam ne nit ñi Sénégal cat daf leen sonal ma gisoon làmmiñ la leen a sonal waaw cat ak làmmiñ yoo xam ne ay saabu yoo xam ne dañ ko waroon defar mm. defar nañ ko ak sel baati bi ak bagage yi nga xam ne moom lay àndal mm-hmm. cat dafay se dafay dafay semmal cat kenn amul gàllaajam day topp nit ki ba ci biir bàmmeel mm-hmm. ñoo saabu yoo xam ne dañ koo liggéey tous les am Abdou Khoudia nga koy sangoo mm-hmm. soo ko sangoo quatre vendredi da koy gas suul ko da ngay gis yaram bu diis yaakaar yu tas yu bëri nit ñu bëri dañuy dem ba yaakaar dañ leen liggéey te liggéeyuñu leen. Mm-hmm. ak yaram lu dis loo xam ne cet da koy def kon saabu miracle yaa fii les savons miracle. Mm-hmm. macha allah nga xam ne dafay dindi lépp luy cat ak làmmiñ mi ngi fi macha allah loolu nag mi ngi eh, dina taxaw. Mhm. nit ñi ñëw soxla ko ci saa su nekk di ko def. génn mhm. daam am na sax jot a jokkoo ñu wax leen ko ñu ngi koy ñëw di ko jënd si. Mhm. partout dans le monde te ñu koy weccee koo bëriwul. na Sénégal am jàmm. ñu ci ay lam yoo xam ne ak ay kaaraange yoo xam ne ci wàllum xale. mag ñi nga xam ne dem ba màgg nekk extérieur nekk Sénégal naan faj ma faj ma damaa feebar dañ ma liggéey loolu laa bëgg mu jeex ba tax dañoo génnee ay lam. ay lam yoo xam ne protection la ci wàllum xale. ah jaaroy après lam dafa amaat. Ah, am na ay lam. Ah yoo xam ne ci ay xale la. ak ay gàllaaj yoo xam ne ci wàllum xale la ndax bëgg naa ndax garab ca tooy tooy ba lañ koy dañ koy jubbante xale yoo xam ne dañuy gént guddi. Hmm. du ñu nelaw du yuuxu xale yoo xam ne am bopp am baat léegi la leen seytaane commencé di leen topp di leen gàllam. Hmm. loolu na taxaw nañ ci ci ay lam. ay bain yoo xam ne tey ci ay xale lañ ko jugal ak ay bëjjën yoo xam ne kaaraange la mhm. ci wàllum xale de zéro lay dox ba vingt et loo xam ne tey buñ ko takkee mhm. yàlla suñu borom musal leen mhm. lii dal seen nday di dal seen baay ñu màgg am ay gàllankoor ñu teel a jóg seen i njaboot ba xam ne bu ñu màgg ba ba am ay jàmm euh, ba am ay nag loolu mi ngi fi ci saa su nekk nañ ci taxaw dégg ñu daal di ñëwaat yaakaar naa ndomba kaaraange ndomba ba waaw dafa fàtte bagaas ñëpp laa fàtte ndax yàqam ñu ngi ci ay ndomba kaaraange ay nomba yi nga xam ne tey ci wàllum kaaraange lay dox ay nomba yoo xam ne ci saa su nekk nit ku ñu liggéey nit ku tële blocage bu yëpp mu ngi fi ay blocage ku dem ku ku ñu débloqué la tubaarkàlla macha allah loo bëgg defal la ko kaaraange yi ak seet bi loxo bu bënn am na ci ay bague miracle yoo xam ne ci ay loxo bu bënn lay dox ci saa su nekk kon nag loolu yëpp tey mi ngi fi képp koo xam ne cee bëgg seet bi moom yaakaar naa ne Afrique nangu nañ d'accord Sénégal nangu nañu. d'accord Asie nangu nañu fépp nangu nañu la voyante du vingt dafa am information bu wàcc léegi. Mhm. te donc yow yàgg ngaa wax ci libération Nabou Leye. Mhm. donc léegi lañ ñu ko wax dañuy enregistré mun naa wax. mais waaw mu leer. <laughs> te léegi la jot nañ dégg que ni Nabou Leye am na liberté provisoire. kon li nga doon wax lii comme dañuy enregistré tey la jeudi. waaw tey la lan jeudi ah. jeudi waaw. ñu ngi jeudi toll ci minuit. waaw vingt vingt waa vingt trois heures cinquante deux. Euh, jeudi le sept. waa wala sax bu. bu waa le sept sax mun naa ne le sept novembre. ok waaw kon tey. gis nga ci commencement émission bi li ma la wax libération Nabou Leye. Hmm. dama ci commencé woon di ñu xuus ñu commencé di massage arrière waaye génn Nabou Leye daf maa leer naññ ma biti. waaye c'est la voyante du vingt-et-unième siècle borom chiffre trois borom jinne Elimane non man dama jàpp allah maa ngi jinne détectrice lu ma la waxoon tey am naa ndam mhm. libération Nabou Leye dama la ko waxoon lu leen nañ te yàgg nga ko wax yàgg na la nee naa lu ma gis ñuy demal Nabou mhm. la fee di Guinée Bissau nee naa la fi ma gis ñuy demal Nabou Leye Nabou Leye dina génn te yii mu ne libération bi dina génn te wàllum gàllaaj la mais ngoone man dama xaw a jaaxle quoi parce que euh, ni nga daan toogee di insisté mm-hmm. ne Nabou fu ma ko gis ñu koy demal mm-hmm. buñ deful ndànk dina génn. dama dama cee wax de. fi ma gis ñu koy demal bu ñu deful ndànk dina génn. Mm-hmm. te damaa gis libération bu mu leer naññ. boo toogee ak kaawu Aziz Dabala bi. nu ñu yëreemee Aziz Dabala ak li ci nekk Nabou dafa toog ci dafa toog ci baatin. dafa dafa dafa garanti yaramam. def kaaraange ñu demal ko fu nekk dans le monde da war naa la nabulay bu du ci kaso. Mm-hmm. ci gis ñu koy demal. non man dama jaaxle non non si dama la xoñal nabulay du jàng du yàgg ci kaso bi na seetkat yi jàng yi jàngi seet lii dama koo wax te dama koo gis la. Mm-hmm. lu ma gis la lu ma leer naññ la loo xam ne dañ ma ko wax tegal mu ko nabulay du yàgg ci kaso bi bu ci yàggoon ma dagg sama kurus. Mm-hmm. te wàllum ñaan moo ko fa génne nee naa la ñaan da génne nit kaso. teex teex. la ñaata nit ñoo xam ne tey ñu nekk ci kaso ñoo xam ne tey dañuy ñëw di ci ay ñaan waxoon naa ko ci kurus ci ina anzal naa ko. waxoon ko ci mbaxana ak yu weex. ñu def allah nit ku ko. am na loo xam ne du kii. waaye ñu ngi ñu dinañ ñu daggal. ko. wax. te vidéo bi nag dañ koy dagg léegi sax duggal ko. mu neex. parce que parce que ci instant bi ñu ko doon bi bi nga xamante ñi ngi ciy waxtaan ne te jot nañ ci dégg ay. kii instant yii ñu ciy waxtaan nii am na lu ñu njëkk a jaar ba mission bi léegi lañ ciy wax libération Nabou Leye dama ko yàgg a toog di ko def ay révélation fii c'est la voyante du. bi nga doon wax métti woon na waaw dafa métti woon jot naa ci saaga bu ne ay day fen day nangam ak nangam. Mhm. Aziz nangam dañu yaakaar ne contre Aziz Dabala moo tax ma doon wax libération Nabou Leye. Mhm. mais dañ ma cee wax lu leer nan la ndax euh, li may wan mhm. la jënna Mahfouz le roi de la mer katloo ji ma lekkoon saabuuree maamam tubaarkàlla sama rawal ba zam ziza oh jinne moo peer ca wet ba eh, eh. tubaarkàlla jinne bi doon ànd ak Jésus Christ am ay siècle li wax de la mer waaye jeegul roi de la mer macha allah li may wax ci eh, la voyante du vingt et unième siècle la libération de Nabou Leye. Mhm. lu leer nañ la. te depuis bi feebar amee loolu nga doon wax vraiment. début bi ba tey dama ko gis. waaw nañu arrière émission yi xoolaat. ko arrière dama xool émission ñu ma def ci Nabou Leye dama koo wax Nabou Leye dama gis libération moo lay wan ne sëriñ ñaar mën na lu ne man ñaata nit ñoo nekk ci kaso ma ñaanal leen ñu génn barki Seydina Muhammad ñaata nit lañ teg ci kaso ma ñaanal leen ñu génn te ñi may waxal ñi may seetaan te ñi may gis. Mhm. wala ma jox leen sarax bu ndaw mu libéré wala ma taxaw def ci ay ñaar nee naa dafa loo xam ne ci ina anzalnaa ku lañ koy ñaar ci libération ku nekk kaso bokk na ci lim yoo xam ne dama ko defoon ci Ousmane Sonko bu mu nekkee kaso mhm. tubaarkàlla macha allah mhm. dama ko gis c'est la détectrice des mauvais bi li ma loo xam ne yàlla suñu borom dañu koy wan daf ñu ko daf ñuy làkk du ñu ko wan ak suñu rawaan mhm. c'est le roi de Mhm. jinne Mahfouz borom alluwe Mahfouz àndumaat lu ndaw. e may wan dama ànd jinne détectrice yi c'est les bras la détectrice des mauvais esprits. Mhm. maa la wax libération Nabou Leye dama ay jinne yu ma àndal sama yaram a ngi tàng ah. dama yaram a ngi tàng. Mhm. dama ay jinne yu ma àndal. man man su ma waxee dara mu am ah, jinne yi dañuy jóg taxaw di ma sàbbal dañ may wër. barki Seydina Mouhamed. dama ko wax parce lii gàllaaj la ñaan mën na lu ne. ñaan mën na lu ne nabulee nee fi ma gis ñu koy demal lii la oh. mi ngi noonu mm-hmm. nabulee def na nabulee deful nee la dañoo jóg nabulee li mu bëgg wax mm-hmm. naa ko sànq ci plateau bi ma paree Bamba mm-hmm. nee naa li mu bëgg mooy ku ko libéré Aziz Dabala lu mu soxla mooy avocat nabulee ñaan la soxla waaye Aziz Dabala avocat la soxla tey jii ñàkk avocat bi nga xam ne dañ koo yéex a taxawee tey buñ ko taxawee avocat ba di dox comme ni avocat nabulee ba daal di taxaw génnee li nga xam ne mooy xaalisam génnee millions yu bëri dugg ci côté àll Mali bi. waaye say say dugg ci Burkina bi ak Mali. dëgg la nabu nabu lay. am na li ko libéré ay jinne li liggéey magie noire xam-xam magie noire lan ñuy liggéey maa la ko wax xam-xam bu ñuul la ñuy liggéey te dama ko gis. non man man man ngoon ni nga daan toogee di ci wax. naam man sax boo ko daan wax ah, waxuma leen ne day dee waxuma leen woon ne day génn te bu génnee parti boppam lay wax te parti boppam boobu ma dellu si waxaat ko plus tard ñoom Sonko lay àndal Amadou Ba bi dal denc maa la ko wax fii hmm. waaw ba waxaat na ko ci yaadoo tere jommi na man lan laa rus jàkkaarlu day dee comme ni ko setkat def day dee mu ko yàlla moo yor bakkan soo waxee sax da ngay jaayanteeg sa borom da ngay weddi yàlla mais dafa am loo xam ne yàlla suñu borom moom ma ko wan côté mystique dafa am ñun ñi di seet mystique dafa am da seetal nit koo xam ne dañ koy atteindre mystiquement ba yow doo ko mën a wax sax dayoo bi ñu ko def ndax bañ mu tiit. d'accord ok man moom ngoone vraiment euh, bu ñu waxantee dëgg moom émission bi mënatuma ko yeggale <laughs> waaw parce que donc dañuy waxante dëgg. depuis mm-hmm. bu affaire kaw Aziz Dabala bi tollee fii. dëgg naan loolu du mus a am duñ ko libéré yow yaa toogoon ne am na fu ñuy demal Nabou Leye. te buñ ci kiiwul ci kàttan yàlla dina génn. te baax na dossier bi dinañ ci jotaat leneen loo xam ne day laale ci wàllum borom ñaari tur dafa chargé ci dossier bi. da ngay defaat révélation. dañ ko chargé ci dossier bi ba mu fees dell la maa la ko wax bokk na ci li koy libéré ak yeneen ak yeneen liberté provisoire boo maytul ci ay enquête dem ak a ñëw lay dem ñuy dem ñu koy woo dem ak a ñëw waaye boo maytul dana tras. Hmm. dana xëddee. te bu génnee nii. Mhm. day génn dëkk bi du toog Sénégal te génn gékk bi muy génn dëkk bi day gën a yokk defaroom te di ko dégg ñu naan génn na ñu naan mi seen kër ñu naan nekk na fi wala nekkul fi ci day wax. ok kon baatin la baatin bee fi ne. d'accord Ngoné. ah yow baatin bi nee naa la ci toon di ci fayu. tey lii rek doy na émission. doy na émission amati nangam. ok waaye li moo tax ma naan seetkat yi nañ ñibbi seen village natal yi xaal am na ñu bàyyi ji xaal. wala ñu ne ji yónneent c' est la voyante la plus pertinente. Eh. les frères rouges pour jinne ilimaan yi tubaarkàlla damaa yor ay jinne réew mi nañ ma nangul damaa yor ay jinne réew mi nañu nangu tubaarkàlla macha allah borom baatin nangu na seetkat yi bàyyi li may wax ci mi kenn du ko wax li may wax ci mi ak li ma fiy gis. Mm-hmm. visionnaire la visionnaire vingt et unième siècle laa bokk yàlla suñu borom moo ma ko defal nañ nangu dama koo gis. d' accord nee naa seet bu ko bëgg. 78 831 37 12. numéro bi nekk ci bas d'écran bi yaakaar naa ne leer na. Mhm. seet moom tubaarkàlla maa ci la maa ci ndaji réew. maa ko te seet ci ndox seet ci safara nee naa la tabbiyee ña da dee la seetlu te nee naa la képp kuy woo di ma seetlu bu ndox sa soxla. Mhm. woo ma ma jàll ci bit bi wax la lii sa soxla. Mhm. wax la lii sa métit wax ma lii sa benn sëriñ wax bu ko. ku ma woo ma seetal ma gisuma la ma delloo la sa xaalis. waaw <laughs> ah, loolu leer na moom. loolu de sëriñ waxagu ko fi. nga woo ma seetal gisuma la ma delloo la sa xaalis nee naa la looy mënta mel ci àdduna nooy mënta toll dayo booy mënta am ma seetal la waa ndox ndox nee naa la dee leen seetlu xam seen i tàbbiya xam seen i rawaa fu ngeen féete bu dee safaraan ndox wala suuf ngeen génnee seen sarax xam fu ngeen féete sarax dafa baax mm. mën na fank ni nit mën ngaa feebar ba tëdd mm-hmm. ba médecin ba ne la dee nga génn ma xoolal la gis ñetti mbiskit wax la ko nga sarax nga sarax daa amul d'accord bakkiirante bi d'accord ngoone euh, nañ jamale fi émission bi fii la yem waaw lan ngay tàggatoo amati naa ndam nga seetkat yi xaar li may wax ci réew mi kenn du ko wax c'est la voyante des patriotes la voyante la plus pertinente la plus belle et la plus jongoma kaa bi lan la ko jëm. d'accord euh, jërë ngeen jëf suñu mbokk internet Feeling Dakar TV comme ni ñu koy defee à chaque fois donc loolu ci ay révélation am la bokkoon euh, ngoone moom yàgg naa toog di wax ni Nabou Leye fu fu mu gis ñu ko fay demal dinañ ko libéré naam da na jot ay menaces doon nañ ko ci saaga tey gis nga. Euh, fi ñu tool di def émission ci dañuy dégg que ni Nambu Lay am na liberté provisoire donc yaakaar naa loolu ndamam la aussi ndamam la ci nga xamante ni man mi à chaque fois di fa dem euh, di waxtaan ak moom euh, di la jaajëfal ngoone bu baax a baax di jaajëfal Dominique moo nekkoon ci régie bi Abdou moo nekkoon ci présentation bi di jox dig dajee ba beneen émission incha allah jaay ngeen jëf. soxna Ngoone Dia la voyante du vingt-et-unième siècle borom chiffre trois borom jinne yi yi ki amee quatre-vingt-dix-neuf seet yu bokkul kulóoma de seet yu bokkul dafay seet ci les quatre natures suuf ndox ngelaw safara dafa yor ay chiffre yoo xam ne ci lay gëstoo mbiru doomi aadama yi wax la sa sarax ba dootoo soxla sëriñ Ngoone moo mën ci feebar yi tëggaay yi boo amee damu-damu jinne daf la sonal seytaane mauvais esprit bu mu ci doon daf koy dindi Ngoone moo mën ci ñi nekkee bitim réew soo fa nekkee am blocage liggéey tëla papier tëla daf koy daal di saafara ngoone mu ngeeg pàkk magique yu doy waar yoo xam ne daf koo liggéey ci li nga xam ne moo di xaatimu Souleymane waaw cangat bu doy waar a nga nii cangat bi nag dafay xëcc xaalis ba noppi itam mu def ci kott jinne du la sonal rab du la sonal làmmiñ ak cat waxi noppi ngoone mu ngeeg kànnaar goo xam ne bis bu la ko joxee lu ci bëgg rek da nga koy ciy daal di am mu ne ma yemuma foofu mu ngeeg benn sondel boo xam ne pouge magique la ñu ko tuddee nee ma ci lay taal taal te ci lay fay soxna Ngoone Dia borom ci nay ilimaani woo ko gaaw yow mi bëgg a faj say aajo au 78 831 37 12 78 831 37 12 ak soxna Ngoone Dia borom ci nay ilimaani moom rek moo mën te moo ëpp doole. del déglu